ne la yaa man yuridu jinaanal xuldi yaskanuha fa xaddi man talabal miftaaxi tuxtarami maanaam maanaam néeg bii boo fi bëggee dugg ñëw gisoo caabi ji te bunt bi tëj nañ ko lijjantil fu caabi ji nekk mooy ku bëgg a dugg àjjana jaamu yàlla oustaz am na beneen boobu loolu tëj na wax ja ku bëgg a dugg aljana jaamu yàlla loolu li muy wax saaneex loo ni yàlla du ko delloo soit xel yi réseaux sociaux yeex loo ni yàlla du ko def yàlla def na lu ko gën a pire ak a wóor sëñ Sam daan na ko gis nga yontu yàlla nuux waaw كنت يالا نوح يالا دكوني جنل دمي علاق وا دك بي سوبا وا مو نيوان تي دومام ووكو ديكو كونسي يالا نيكو كي دوسا دوم يا كو جور مي بوكول تي يو انه ليس من اهلك باسكو انه عمل غير صالح باسكو لي مي داف باخول دغلا دومو يوننتي سا نيه دومو يوننت لا يالا ني بايي كو في تخامني جوروكو بومي مبوغل مو بوكالي تي yont yàlla ibrahima mii ngay dégg yàlla wax ni ibrahima mooy sama xarit wattaxasallahu ibrahima xalila mm-hmm. man yàlla maa jàpp yont yàlla ibrahima muy sama xarit mm-hmm. téere yi am na nañu wax ni baayam ma nga safara mooy azara mm-hmm. yàlla fu mu mbugalee baayu yonent mu mbugalee baayu yonent mbugalee fa doomu yonent sa neex keneen taxul ngay wax fii ku jaamuwul yàlla saa neex da ngay perte nga sa na jëf loo ca def dañ la ko cay bindal hmm. sëñ sëñ Tuubaa def ni laa tastari dunya bi uxra yaa fata man baa anuuran bi dujaa fa sa yandamu hmm. ku jël sa leer jëndee ko lëndëm dangay pert perte hmm. ku jaamuwul yàlla da ngay perte jaamu yàlla mooy yéegi nit ëllëg xam nga xam yàlla yàgg mbugal ay baayu yonent ay doomu yonent yàlla xamul askan yonent bi dafa xëy bis woo Fatima ba mu ñëw mu ne ko kuy sa papa mu ne ko yow kuy gën gi mbindeef mu ne ko yow ëlëk bu nit ñi tité ci kan lañuy wëru mu ne ko yow mu ne ko kan la yalla wax ni jéggal na la say bakkar yu njëkk ak mujj mu ne ko yow mu ne ko ba xam nga ni yowmal xiyaam mënaluma la fa dara atank yonent bi xam la la japp man man janguma alquran comme ñom ñu mun ko jangé waaw mais tay da ngay dégg ñu né julit du lak waaw lan moy julit parce que tay ji bu fekkante ne ya nga julli certes hmm. waye sa xol rafetul hmm. do wax ko tu deug iblis la ëpp yéena iblis la ëpp yéena won nangam hmm. nga yow jullit nga koku du julit wala yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla da ko ni won gaay yi ñew ci jakka ji di la jégué bo génné ñuy ñuy xëm waaw di joy nan muhammad ay way yonent bi di gaññiy beut hmm. yalla ni ko genn wàll hmm. gi ay nafiq lañ hypocrite hmm. wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun yalla ni ko maa ngi lay sédel ni genn walu ñi la wër nan gëm nañ la gëmuñu la parce que dañ lay wan lo xamni lay wan ak li nekk ci seen bir xol bokul Mhm. sàmm nag tey damay bàyyi garde gi yaa ngi dégg dañu lay wan loo xam ni li nekk ci seen biir xol bukkul ak li nu lay wan mhm. yaa ngi dégg saa neex ba pare yàlla wax ci alquran ni mhm. julli julli daf lay teree def lu bon waa léegi saa neex xanaa kon di nga am problème mu kii julli ba pare dàq def nit lu bon kii julli ba pare sëlmal ci sijaada gi rek sol yéreem dem seeti sëriñ pour tas diggante ñaar ñuy sëy kii julli ba pare toog ci si sijaada gi jugagul commencé jëw mais kooku julliwut mhm. loolu du julli loolu du julli du julli bu julli ga baaxoon da koy teree def loolu waaw kay mais julli ga baaxul loolooy problème ba nag li Zozo wax saaneex gis nga jullit waaw dafa bari ñuy tuddee seen bopp ni man jullit laa te li yàlla sant jullit néewuñu ci